dal leen ak jàmm ci seen chaîne bi ñuy wax MBS TV bu leen fàtte abonné aimé ak partagé MBS TV la chaîne pour tous a baax a baax. sëriñ bi ne ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. di julli ci yoon yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. di tëbbu ci barke Cheikhna Tidiane radiyallahu taala anhu. di tëbbu ci barke Seydina Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu. di ñaanal Seydil Mujahid maam Ahmadou Ndak Seck. di ñaanal Seydil Mujahid maam Ahmadou Ndak Seck. yal na yàlla yokk leeram te taal ñu si barkeem di ñaanal sëriñ ma di ko sekk yal na yàlla defal ko njéggal yal na yàlla defal ko yërmande yal na yàlla defal ko ngërëmal yàlla ñu ngi nuyu sunu xalifa général di sunu maam Serigne Assane Seck nga xam ni mooy borom bis bi mooy borom jotaay bi liñ fi def moom nañ ko doon defal fi waxit moom rek dañ koy waxal ñu koy nuyu di ko siyaar bu baax di ko jox wàccuwaayam di kontaan si ak teewam ñu siiwale suñu mbégte bu baax a baax te di koy ñaanal yàlla yàlla gën a guddal faram yàlla na yàlla dolli ak wéram yàlla na yàlla dolli suturaam yàlla na yàlla mottali ak yéeneem ci diine ji yàlla na yàlla mottali ak yéeneem ci tarixa bi yàlla na yàlla mottali ak yéeneem ci njaboot bi tarixa buy sonn kilifa buy sonn njaboot laa tax. maam Assane nii mu nekk di ko sonn. maam Assane nii mu nekk di ko sonn. bu doon boppam rek. bu doon boppam rek. yaakaar ya, naa ne du ko def. am am na ko ba xam li am am na ko ba pare. waaye njaboot gi ci boppam. waaye njaboot gi ci boppam. moo tax moom mii muy sonn. kon ñu koy ñaanal ñu ngi gi. ñun ñi tax muy sonn. ñun ñi tax muy sonn. yàlla na ko yàlla dimbali. ba lim ñu bëggal. ba lim ñu bëggal. yàlla na ko yàlla mottali. ñu koy masawu ci coono yi. ñu ngi koy masawu ci coono yi. di ko masawu ci toogaay bu yàgg bi. di ko ñii nga xam ne demaguñu fenn. ndax ñun ñii nga xam ne fenn. bu ñu toogee toogaay bu yàgg rek. bu ñu toogee li ñuy daj. li ñuy daj. yàlla rek lañ koy seedaloo. waxuma laa kilifa yi nga xam ni fa tabaarakallaahu yal na yàlla dolli leen wér yal na yàlla dolli leen sutura yal na yàlla yàgg taxawaay yi yal na yàlla mottali leen seen yéene laaye bi nga xam ni moom lañ jàngoon léegi nag laaye bi nga xam ni moom lañ jàngoon léegi nag sëriñ bi nee dañ koy leeral jotaayu sëriñ ba dikk rek nga xam ne sëriñ Malick moom ak alquran yàlla moo ko ci sedd dimbali ko ci dimbal koo xam ni sëriñ bi ne yaakaar naa ne ko ci fekk rek man ngaa yaakaar naa ne mën ngaa xeeb sa kër waaye nab na bi wàññiwu dara bu ko defee sëriñ bi ne ñu barkeelu gàttal ko rek ndax ñii nga xam ni ñoo njëkk a wax yaakaar ne seen kàddu bu sëy moom mat na sëkk ku bëgg a waaru mën nga cee waaru ku bëgg a jëriñu mën nga see jëriñu inna fi saalika la zikra liman kaana lahu qalbun wa alqa sama aw alqa sama wa huwa shahidun seen kàddu foofu rek la taxawee kon ñoom dimbali na lu bëree bëri. yàlla na yàlla boole min alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsanahu te ñooñu de. te ñooñu ulaayika alladina hadahum allahu wa ulaayika hum ulul albaab ñi nga xam ne buñ déggee wax. dañ koy seetantal. di ko bàyyi xel. fas ko yéene jëfee rawatina waxi suñu borom nga xam ni buñ koy appliqué dañ koy appliqué sa nu gën a rafetee yàlla nee na melakaan woowu ku nekk ci yow yàlla gindi na la te itam ña am xel ya sell. da ngay dimaale sa ña am xel ya sell. kuy dimaale ña am ay xel ya sell. kuy dimaale ña am xel ya sell. na la ca boole kon loolu yal nañu ko yàlla boole defal ko ñëpp. bis bii bis bii. bis boo xam ne sunu maam Alpha Mamadou. day bis boo xam ne suñu maam Alpha Mamadou. yal na ko yàlla dolli gërëm. moo ci joxoon ndigal sëñ Madika Seck. moo ci joxoon ndigal sëñ Madika Seck. waaye sabab sa nag. waaye sabab sa nag. wàññeekoo ca kot sunu mag di wàññeekoo ca kot sëriñ Ibrahima Seck waa ci leen di ko jaal fanaan si fee sikkar fanaan si ñaan sëriñ ma diggee ndigal ne ko. dañoo bëgg li daal bu ëllëgee. ñu def ko muy ak gàmm. sëriñ ma diggee bàyyam may ko si ndigal. waaye ba mu ko see may ndigal rek. yàlla yi kese taxoon. fa taxul woon. caaxaan taxul woon. kon bu ko defee. jotaay yu mel nii suñ ko amee. jotaay yu mel ah war nañoo góorgóorlu ba. war nañoo góorgóorlu ba. ba jotaay ba yàlla. ba pas-pas mën a dooleeku. seen borom mën a dooleeku. seen borom mën a seen doon seen diggante nit ñi mën a doyoo. ba kenn ku nekk. ba kenn ku nekk. nga mën a sédd sa morom orma. Hmm. a sédd sa morom orma. jotaay boobu. jotaay boobu. moom lañ bëgg ci jotaay bi. yàlla nañ ko ci yàlla defal. tey itam. tey itam. Ah, bu fekkee bëgg nañoo am ngërëmal yàlla ci jotaay. bu fekkee bëgg jotaay bi. ak faju aajo. noonu la jotaay bi tënkoo. ndax alquran. nee na la wooyee ci yàlla. ak ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. nga xam ni boo fa demee yàlla lañ fay wax. boo fa demee yonent bi sallallahu alayhi wa seen wuuru yàlla seen doyloo yàlla seen féeteeg yàlla seen diine seen ngor bis boobu kuñ ca woo bis boobu kuñ sa woo demal nga ji boo amul ngànt yaa ayyuha allazina amanu stajibu yaa ayyuha allazina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli lillahi wa lirrasuli isadaakum isadaakum limaa yuhyikum moom nan soxla si jotaay bi kon ku fi ñëw rek yàlla na sa xol gën a dundaat yàlla na sa pas-pas gën a dundaat yàlla nga gën a yokkuwaat si biir ak si biti. ba mu leer na ne yow mii gàmm ji nga gàmm ñoom kenn ba Kajoor. ba mu leer na ne yow mii gàmm ji nga gàmm ñoom kenn ba Kajoor. sonn nga def sonn nga def. waaye coono ba ak jàng na yàlla ko yàlla defal ñun ñëpp coono mën ta ñàkk waaye bu sonn ba pare jariñu waaye bu sonn ba pare jariñu yaakaar naa ne bi annahum saalika yusibuhum samaun wala nasabun wala mahmasatun fi sabilillahi wala yatauna mawti'an يقيس الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يديهم أجر المحسنين ولا ينفقون ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم إلا كتب لهم إلا كتب لهم إلا كتب لهم إلا كتب لهم إلا كتب لهم إلا كتب لهم إلا كتب لهم kon bu ko defee coono yi nga xam ni mooy am ci bis yu mel nii. boo ko defee coono yi nga xam ni mooy am ci bis mel nii. moo xam coono bu mën a doon. moo xam coono bu mën a doon. bu nga caa am ngërëmal yàlla. bu la leeree ni mën nga caa naa ne coono boobu dootoo ko ko gisati. loolu moo nekk loolu moo nekk ci nit ñi. kenn ku nekk. ba kenn ku nekk. gisoo sab coono. gisoo sab coono. gisoo sa sa xiif. gisoo sa mar. sa mar. gisoo li nga xam ni moom ngay dépassé. gisoo li nga xam ni moom ngay a fay. kon yàlla mi a ah, yàlla yàlla fay. yàlla yàlla ci gàttal. aaya boobu ci gàttal. suñu borom dafa woo gaa yi nga xam ni ñoo gëm yàlla. suñu borom dafa woo gaa yi nga xam ni ñoo gëm ñooy ak péeteem. ñoom ñoo ko nangul. ndax ñoom ñoo ko nangul. saalika bi anna allah. saalika bi anna allah. mawla allazina amanu. mawla allazina amanu. wa anna alkafirina. wa anna alkafirina. la mawla lahum. la mawla lahum. yéefar amul kilifa. yéefar amul kilifa. waaye julit. waaye julit. moo am kilifa. ndax kilifa da nga koy déglu. ndax kilifa da nga koy déglu. mu lay digal ngay def. mu lay digal ngay def. mu lay tere ngay bàyyi. mu lay tere ngay bàyyi. yéefar yi nag. yéefar yi nag. yàlla da leen a tere ñu bañ. yàlla da leen a tere ñu bañ. mu digal leen ñu bañ. mu digal leen ñu bañ. kon loolu ñoom amuñu kilifa. kon ñooñu kay amuñu kilifa. kon ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla. kon ñi nga xam ni ñoo gëm yàlla. ñoom la yàlla woo ci aaya boobu. ñoom la yàlla woo ci aaya boobu. lam leen wooyee nag. lam leen wooyee nag. mooy na ngeen góorgóorlu ba. mooy na ngeen góorlu góorgóorlu ba. alal jeeg. alanteeg njaboot njaboot ji bu mu dox seen digganteeg jaamu yàlla bu mu dox seen digganteeg jaamu yàlla an zikrillahi googu an zikrillahi googu am na ñoo xam ni an ibadatillahi lañ koy firee an ibadatillahi lañ koy firee dañoo wax ni jaamu yàlla bu mu mën a doon ndax dañoo wax ni jaamu yàlla bu mën a doon yàlla tudd yàlla. tudd yàlla nga ci biir. tudd yàlla ma nga ca biir. mën nañoo wax jaamu yàlla yëpp. ma nañoo wax jaamu yàlla yëpp. tudd yàlla rek. tudd yàlla rek la. yàlla ni yéen ñi gëm yàlla. yàlla ni yéen ñi seen alal ji. seenu njaboot gi. ak seenu njaboot gi. bu mu leen gënal yàlla mi leen sàkk. bu mu leen gënal yàlla mi leen sàkk. bu mu leen gënal yàlla mi leen may njaboot gi. bu mu leen gënal yàlla mi leen may njaboot gi. bu leen gënal yàlla mi leen may alal ji. bu leen gënal yàlla mi leen may alal ji. ba bu julli jotee. ba bu julli jotee. ñu wootee. ñu wootee. nga topp sa njaboot. nga topp sa njaboot. bëgg lu leen neex. ndax bëgg lu leen neex. topp sa alal. topp sa alal. nekk sa bitig ba. nekk sa bitig ba. nekk sa usine ba. nekk sa nekk sa entreprise bi. nekk tool ba. nekk sa tool ba. wala feneen foo mën a nekk. ba doo tal julli. yàlla na loolu bu ko kenn def. yàlla suñu borom bi nee na loolu bu ko kenn def. ndax bu ñu xasee wax ni allahu akbar. ndax bu ñu xasee wax ni allahu akbar. allahu akbar mooy lépp loo xam ne jaam bi jàpp na ko ba jàpp ni loolu dafa màgg yàlla ko gën a ne ko ba jàpp dafa màgg yàlla gën a màgg loolu. boo ko xasee dégg rek. boo ko xasee dégg rek. la nga nekkoon la nekkoon. jàppal ni yàlla ko gën a mag yàlla ko gën a mag bàyyi loolu bàyyi loolu wuy ji yàlla boo doon nelaw jógal bàyyi nelaw yi boo doon nelaw jógal bàyyi nelaw yi boo doon waxtaan bàyyil waxtaan wi boo doon waxtaan bàyyil waxtaan wi boo doon seetaan télévision bàyyil seetaan bi boo doon seetaan télé bàyyi seetaan bi boo doon jaay bàyyil jaay mi boo doon jaay bàyyi jaay mi loo mën a def daal loo mën a def daal bu julli jotee bàyyi ko nga dem jaamu ji yàlla yaa ayyuha allazina amanu isa nuudiya li salaati min yawmi aljumaa fasaw ila zikrillahi wasalul baya bu ngeen ko defee saalikum xayrun lakum in kuntum taxlamun jaamu yàlla jaamu yàlla day defar waaye du yàqal kenn dara loo jàpp ba yaakaar ni film si bu ñu wootee ca jàkka ja ba yaakaar ni film si bu ñu wootee sa jàkka ja wala bu ñu wootee ci sante yàlla yi wala bu ñu wootee ci sante yàlla yi nga jàpp ni lii nga nekk mën nga cee continuer nga jàpp ni lii nga nekk mën nga cee continuer am ci ndam am ci ndam avancement am ci avancement am ci réussir am ci réussir léegi ñu la woo léegi ñu la woo boo demee boo demee mën na laa yàqal na laa yàqal bu boobaa bu boobaa sam xel gàtt na dëgg la yàlla wootee lu waay jàppoon bàyyi ko nga wuy ji yàlla. bu yàlla wootee lu waay jàppoon bàyyi ko nga wuy ji yàlla. rawatina nag bi ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkee. rawatina wootee ci jihaad fii sabilillahi. daan wootee ci jihaad fii sabilillahi. mu metti lool. mu metti lool. nga xam ni day laaj bakkan. nga xam ni day laaj bakkan. day laaj alal. day laaj alal. te ñaar yooyu yëpp. te ñaar yooyu yëpp. caaxaan joxewu ko. caaxaan joxewu waaye nag boo gëmee ni yàlla mooy sa borom. waaye boo gëmee ni yàlla mooy sa boroom day daal di oyof si yow toy. kon njaboot gi. kon njaboot gi. ak alal ji. ak alal ji. mudd nangoo jàmm yàlla bu mu tax kenn nangoo jàmm yàlla wa ma amwaalukum wa wala awlaadukum wala awlaadukum billati billati tuqarribuna tuqarribuna indana indana sulfa sulfa déedéet illa man amana illa man amana amila salihan wa amila salihan ulaika fa ulaika lahum lahum jasaa'u dha'fi jasaa'u dha'fi بما عملوا بما عملوا وهم وهم في الخرفات في الخرفات آمنوا آمنوا yàlla nee na alal jeeg njaboot ji yàlla nee na alal jeeg njaboot ji mënta may kenn cër ca yàlla mënta may kenn cër sa yàlla cër ca yàlla xam nga lan moo koy mayam cër sa yàlla xam nga lan moo koy mayam gëm yàlla gëm yàlla ak def baax kon loolu mat naa xam bu baax. saxalat naa. amwaalu naa. wa ëllu naa. ña koy wax. yaakaar naa ni. seen alal jëpp na leen. seen njaboot jekk na leen. almaalu wal banuuna. almaalu wal banuuna. siinatul xayaatu dunya rek la. siinatul xayaatu dunya rek la. wal baaqiyaatu saalihaat la. wal baaqiyaatu saalihaat la. xayrun inda rabbika sawaaban wa xayrun amalan. yàlla nee na. fa tabaarakallaahu yooyu bu mu dox sa digganteeg jaamu yàlla. yàlla nee na fa tabaarakallaahu loolu bu mu dox sa digganteeg jaamu yàlla. ndax boo ko defee. ndax boo ko defee. bu ëllëgee bu ëllëgee di nga perte. yaakaar naa ni perte kenn bëgg. te yaakaar naa ni perte kenn bëgg. mu ne nag alal ji nga xam ni moom laa leen jox. mu ne nag alal ji nga xam ni moom laa leen jox. da ngeen ciy jël waaye nag santuma leen ngeen jël lépp nag baadama rasaqnaakum nee na alal ji ma leen jox da ngeen siy jël waaye santuma leen ngeen jël lépp waxoon ni wa anfiqu ma rasaqnaakum waxoon waa wa anfiqu ma rasaqnaakum waxoon wa anfiqu ma rasaqnaakum waxoon wa da nga koy joxe. waaye da laa wax ne la amal loo ca waaye da wax ne la amal loo sa sa asaka waree nga génne ko. bu sa asaka waree nga génne ko. boo si waree dimbali jaamu yàlla yi nga dimbali leen. boo si waree dimbali jaamu yàlla yi nga dimbali leen. la ca des fa. la ca des fa. sell barkeel barkeel. alal ah, la ko jox. ndax alal ji yàlla la ko jox. ka la jox bu la nee joxeel ma. bu la waxee war nga saa sawar. war nga saa sawar. war nga saa am yéene. wa anfiqu mimma jaxalakum mustaxlafiina fiihi fa tabarakallahu. yàlla nee na bu fekkee da yàlla nee na bu fekkee da ngaa alal. nu mu génne asaka. balaa yàgg sukuraat ñëw. te sukuraat bu xasee ñëw. lépp loo jàppoon. lépp loo jàppoon. si àdduna. bëggoon ko. bëggoon ko. koroog ba koy gën a bañ. ndax danga toll foo xam ni. ndax danga toll foo xam ni. loo defoon lu dul lu lay may ngërëmal yàlla. loo defoon lu dul lay may ngërëmal yàlla. walaay di bëri. tey muy euh, moment yu jafe lool. tey muy moment yu jafe lool. nga xam ni jaam bi bu fa tollee. nga xam ni jaam bi bu fa tollee. war na ginnaaw adduna. war na ginnaaw adduna. dëgg man alaaxira. nee na bu boobaa ku a bu boobaa ku nanguwul woon a joxe asaka. wala ku nanguwul woon a joxe fii a bu malakal moo di jàkkaarloog yow. bëgg a jël sa ruux. nga bëgg koo wax ni que damaa bëgg nga may ma diir bu bu baax day coow day bëri rek waaye loolu kenn doo moom ku mu xas wàcc ci yow. ndax malaakul mawti moom ku mu xas ba wàcc ci yow. buy dellu buy dellu. sagru lay ànd ak waaye amul kenn ku malakul mawti mos a ñëw ci moom. waaye amul kenn ku malakul mawti mos a ñëw si moom. jël di jël si ruwaam di jël si ruwaam. dellu dellu. Ah, te la mu bëgg amul. yàlla ni kon na ngeen góorgóorlu. yàlla ni kon na ngeen góorgóorlu. na ngeen profitoo. na ngeen bàyyi xel jamono jooju. na ngeen bàyyi xel jamono jooju. bu ñëwee. te jamono jooju bu ñëwee. loo defoon lu dul lu baax. loo defoon lu lu baax. di nga ko rëcc. kon boog profité leen bala moo ñëw. kon boog profité leen bala moo ñëw. yow mi yàlla jox alal. yow mi yàlla jox alal. nga mën cee génne asaka. nga mën see génne asaka. dee si génne asaka. asaka moom ku nangu wut a joxe. asaka moom ku nangu wut a joxe. waaye ban nga bañ a julli. boo yeboo nga bañ a julli. ñoom ñaar ñooy ànd. ñoom ñaar ñooy ànd. yuqiimu salaata. yuqiimu salaata. wa yuutu zakaata rek. ñoom ñaar ay seex lañ ci alquran. ñaar ay seex ci alquran. benn bu ci ñëw. benn bu ci ñëw. ànd naag morom ja moo tax ku mel ni Aboubacar ni Siddiq moo tax ku mel ni Aboubacar Siddiq bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wuy jee boroomam bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wuy jee boroomam am ñoo xam ne dañoo lànk ni dootuñu joxe asaka am ñoo xam ne dañoo lànk ne dootuñu joxe asaka jàpp ne yonent bi dañ ko waroon a jox jóge na fi jeex na jàpp ne yonent yàlla moom dañ ko waroon a jox jóge na fi jeex na Aboubacar yi doonte ñoom nee nañ ay jullit lañ Aboubacar yi doonte ñoom nee nañ ay jullit lañ dafa xeex ak ñoom dafa xeex ak ñoom ndax ndax ñàkk joxe asaka kon asaka wàccuwaay boobu la yor ci lislaam kon asaka wàccuwaay boobu la yor ci lislaam kon ñu war see góorgóorlu bu baax a baax kon ñu war see góorgóorlu bu baax ku bëgg sa alal sell ku bëgg sa alal sell ku bëgg sa alal barkeel ku bëgg sa alal barkeel ku bëgg a jëriñoo sa alal ku bëgg a jëriñoo sa alal la la sa yàlla sant la la sa yàlla sant dee ko def waaye boo ko deful waaye boo ko deful coono yi bëri rek coono yi bëri rek waaye lu mu yàgg-yàgg waaye lu mu yàgg-yàgg alkane rek moo cay am. alkane rek moo cay am. bari na koo xam bari na koo xam day dem ba ca yàgg. day dem ba sa yàgg. alalam am ay jafe-jafe. alalam am ay jafe-jafe. wala place ba mu doon jaayee am ay jafe-jafe. wala place ba mu doon jaayee am ay jafe-jafe. wala marché yéen doon jaayee am jafe-jafe. wala marché yéen doon jaayee am jafe-jafe. marché yu lakk yi dégg ko fi ba marché yu lakk yi dégg ko fi ba am na nu muy demee. am na nu muy demee. ñaar ak ñaar ak yu fa yu fa am am joxe asaka. joxe asaka. mbugalum yàlla ñëw mbugalum yàlla ñëw matale ko ñëpp wattaqu fitnatan wattaqu fitnatan laa tusibanna allazina laa tusibanna allazina zalamu minkum minkum xaasatan kenn nit rek mën naa nekk ci dëkk kenn nit rek mën naa nekk ci dëkk di mooy yàlla. di mooy yàlla. yàlla boobu muy mooy yàlla. te mooy yàlla boobu muy mooy yàlla. yàlla mën na cee sanctionné ña fa dëkk ñëpp. yàlla mën na ñëpp. am na xisa bu ñuy nettali ci jamono yonent yàlla Moussa. am na xisa yàlla Moussa. benn waay boo xam ne dafa nekkoon ca dëkk ba. benn waay boo xam ni dafa nekkoon sa dëkk ba. sàggan lool. sàggan lool. doy waar lool. doy waar a mooy yàlla lool. a mooy yàlla lool. dëkk ba nag. dëkk ba nag. Nekon ci naataange. nekkoon ci naataange. ñu dem ba ca yàgg nag. ñu dem ba ca yàgg nag. bekkoor daal di ñëw. bekkoor daal di ñëw. Ah, metti li lool. metti lool. jamono ji metti lool. da ngay bay bay bëgg am dara. jamono rek. dem dem ne ko bëgg nga ñaanal ñu sa borom. ndax jamono metti na. mënatuñoo ba am ko. te mënatuñoo bay dara ba am ko. yonent yàlla Moussa ñaan boromam. yonent yàlla Moussa ñaan boromam. bay bëgg a dee. bay bëgg a dee. ba sonn. ba sonn. te yàlla nangul ko. te yonent bu ñaanee. te yonent bu ñaanee. yàlla da koy nangul. yonent yàlla Moussa laaj boroomam. yonent yàlla Moussa laaj boroomam. ne ko yow de sama digganteeg yow. ne ko yow de sama digganteeg yow. xaw ma ci woon lii. xaw ma si woon lii. bu ma la mos ñaan. ma la mos a ñaan rek. danga ma nangul. ma nangul. waaye naa la ba tey. waaye de man de ñaan naa la ba tey. waaye daa mel ni wuyu woo ma. yàlla ne ko li tax wuyu ma la. yàlla ne ko li tax wuyu ma la. dafa am benn waay boo xam ne. dafa am benn daa ne ci seen biir. daa ne ci seen biir. ba bari lu muy mooy bari lu muy mooy yàlla. te bari bari lu muy mooy yàlla. feeg mi ngi ci seen biir. feeg mu ngi seen biir. tuubul tuubul. bàyyiwul li muy def bàyyiwul li muy def. bekkoor bi bekkoor bi. du fi jóge du fi jóge. yonent yàlla Moussa dellu waxtaan ak njabootam. yonent yàlla Moussa dellu waxtaan ak njabootam. ne leen naa sama borom. ne leen man sama borom. ba yàlla nanguwul. ba tey te yàlla nanguwul. nee na ma nag. dafa am ku nekk ci dëkk bi. dafa lool. sàggan lool. doy waar lool. mën a mooy lool. mën a mooy lool. damaa bëgg nag bu ko de damaa bëgg. damaa bëgg. ngeen wax ko ñu xam ko génne ko dëkk bi. ngeen wax ko ñu xam ko génnee ko dëkk bi. waaja ba mu déggee loolu. waaja nag ba mu déggee loolu. ah mu tiit lool. mu tiit lool. jaaxle lool. mu mu fas yéene fa mu nekk tuub delluwaat ca borom. mu sa borom. fa tabarakallahu fa tabarakallahu yonent yàlla Moussa bi da ko nangul ñaan ba yàlla sax ñu ni am na sax dafa ñaan yàlla yonent yàlla Moussa dafa ñaan yàlla ne ko def loolu dama bëgg nga wan ma ko xam ko ne ko def loolu dama bëgg nga wan xam ko ñu bokk ñu suñu ñu bokk suñu la la ñu toroxal ko ñu toroxal ko duma ko def. yàlla ne ko duma ko def. na ma ko suturaale woon ba xamu ko. na ma ko suturaale ba xamu leen ko. noonu laa koy continuer di ko suturaale. noonu laa koy continuer di ko suturaale. waaye ba mu toogee foofu rek. waaye ba mu toogee foofu rek. tuub tuub. yéene tuub. yéene tuub. fa tabaarakallaahu. boobu la naataange daal di ñëwaat. boobu la naataange daal di ñëwaat. kon. bari na jafe-jafe yoo xam ne senegal mi ngi koy dund. bari na jafe-jafe yoo xam ne Sénégal ci ñi nga xam ni. ñenn nag ci ñi nga xam ni. ah ñoo nangu wut a ci ay ndigal. ñoo nangu wut a tënku ci ay ndigal. ñoom ñoo waral jafe-jafe yëpp. ñoom ñoo waral jafe-jafe yëpp. kenn ku ne xam na ni ñax gu mën naa ñàkk nag mën naa lakk nag ñax gu tooy. ndax kenn ku nekk xam na ni ñax gu wow mën naa lakk ñax gu tooy. kon nañ góorgóorlu bu baax. baax. fa tabaarakallaahu. gën a ci yàlla. gën a dellu ci yàlla. ndax xam ni yàlla rek moo fi nekk. keneen ñëw fii. fa tabaarakallaahu. yonent bi nee na alal ji la yàlla jox. yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam nee na alal ji la yàlla jox. na nga ci joxe. na nga ci joxe. wa anta. wa anta. saxiixun. saxiixun. saxiix. saxiikun. na fekk boobu ba ngay joxe. na fekk boobu ba ngay joxe. la ngay joxe nga soxla ko lool. la ngay joxe nga soxla ko lool. na fekk dara jotu la. na fekk ni dara jotu la. waaye dem ba soxlaatoo. waaye dem ba soxlaatoo. wala nga dem ba feebar. wala nga dem ba feebar. yaakaar ne dee ngi ñëw. yaakaar ne dee ngi ñëw. nga commencé di séddale. nga commencé di séddale. naan joxal ma diw. naan joxal ma diw. joxal ma diw. joxal ma diw. dimbalil diw. dimbalil ngay joxe. parce que yow jeexal nga ba pare. yow parce que yow jeexal nga ba pare. nee na da ngaa war a joxe bala ngaa toll. toll ko. nee na a joxe bala ngaa toll foofu. fekk li ngay joxe boobu nga bëgg ko. te fekk nga bëgg ko. li ngay na fekk nga toll ko. na fekk nga toll ko. dara jot la. waaye loolu bu amul. waaye loolu bu amul. boo joxe. boo joxe doo sa am dara. kon ñu ngi sant yàlla bu baax. kon ñu ngi sant yàlla bu ñi li leen fi nekke woon. mag ñi li leen fi nekke woon. nangoo jaamu yàlla. nangoo wéy si ndigal. nangoo lool. bëgg yàlla lool. kon bu ñuy waxtaanee mag ñi. kon bu ñuy waxtaanee mag ñi. war nañoo góorgóorlu ba yooyu ñu yooyu nekkoon ci ñoom. war nañ góorgóorlu ba melokaan yooyu nekkoon ci mag ñi. ñu fas koo yéene roy ci ñoom. ñu fas koo ndax loolu. secret bi. ku la mën a a jur. Ah, boo melul nam mel sa ragal yàlla. boo wala nga jéemit bu ëllëgee du la mënal dara wallazina amanu wattabaatum suriyatuhum bi imaanin bu fekkee say maam dañoo gëmoon yàlla baax bu fekkee say maam dañoo gëmoon yàlla baax yow nga ñëw di baax yow nga ñëw di baax def sa kemtulaay kattan def sa sa kemtulaay kattan toogoo ni diw mooy sama baay toogoo ni diw mooy sama baay sama maam. toogoo ni diw mooy sama maam. waaye sa effort. waaye nga def sa effort. bu ëllëgee. bu ëllëgee. yàlla ya xam ne yàlla ya yow mii. amoon nga yéene. amoon nga yéene. def nga la nga man. def nga la nga man. moo ci si yéen ma de. kon nañ góorgóorlu bu baax. sëñ ma de. sëriñ ma diggee. nii rek la fi nekk. nii rek la ne xam na ni musta noppali ci àddina. kenn ku ma diggee musta noppali ci àddina. lii mu fi réalisé. lii mu fi réalisé. yaakaar naa ni bu tëddoon nelaw. yaakaar naa du ko mën a réaliser mukk mustatal dara bu nekkee ci kër gi mi ngi recevoir ay gan mi ngi recevoir ay gan mi ngi ci conférence mi ngi yi mi ngi si dëj yi mi ngi ci ngénte yi xeebalul ak njabootam dara lu ko yàlla joxit mu jël ko def ko fii sabilillah kooku ne moom lañ jël teg ko ci kon kooku nga xam ne moom lañ jël teg ko su suñu kanam jikko yi ko yàlla defaraloon jikko yi ko ñu itam. dañ ko war a jël teg ko ci sunu kanam. dañ ko war a jël teg ko ci sunu kanam. fas ko yéene roy. fas ko yéene roy. xam ne ku la ko gën a roy nag. te xam ne ku la ko gën a roy rek. moo la gën a xeej sa moom. yonent bi nee na. yonent yàlla Muhammad nee na. bu yomal xiyaamee. ñi gën a rafet jikko. ñi gën a rafet jikko. ñoo may gën a jege. waaye sëñ ma dikkee. waaye sëñ ma dikkee. ku ko gën a roy rek. ku ko gën a roy rek. buñ la ko waxee buñ la ko waxul. buñ la ko waxee buñ la ko waxul. ku am cër nga ca. ku am cër nga sa moom. kon fa tabaarakallaahu. kon fa tabaarakallaahu. ñu di ko jaajëfal moom sëriñ Madické. sëriñ Madické ñu ngi koy sant di ko jaajëfal moom sëriñ Madické. li ko waroon ci diina ji def na ko. li ko waroon ci diina ji def na li ko waroon ci tariixa bi def na ko. li ko waroon ci tariixa bi li ko waroon